dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw gannaaw ba ñu leen nuyoo mbokk internet info 221 ñu ngi leen di jëfal ci ànd beeg déglu bi wax rek nag ci euh, ambassade bu Sénégal bu nekk ca États-Unis ak ña nga ko woon nag jotoon nañ nag def ab appel goo xamante ni dañuy woote képp koo xamante ne nag ràññee nga ci kenn ña ko def nag jot nañu teg ñeenti suspect ñoo xamante ne jamono ji ñu ngi leen teg nag ci contrôle judiciaire nag avis de recherche boo xamante ne dañu ciblé woon toll ci fukk ak benn doomu sénégalais yoo xamante ni bokkoon nañuy saax saaxe consulat général bu Sénégal bu nekk ca New York loole mi ngi amoon nag ñeenti fan ci weeru ut bee ñu weesoo Les Échos dafa ñëw nag niki tey ji si altine bi fas yéene ci indiwaat ab leeral tolloog ñaari fan ci weeru octobre eh, ci ñoo ci fukk benn yooyu jot nañ ci teg loxo ñeent ñoo xamante ne daal jamono ji jot nañ interpellé ba noppi libéré nañ leen sous caution ci ëllëg sax ñaar ñooñu nag bokk na ci kuy wuyoo si i kenn ki Diop ñoom ñëpp jot nañu ne interpellé ba noppi nag ci mois sommet des Nations bi nga xamante forces et de sécurité américaine jotoon nañu souligner nee na faw ñu préciser juge Willis euh, en charge bi yoroon dossier boobee jot na souhaité bu baax a baax ne daañu def seen kentalaay kàttan ngir teg loxo ñi nga xamante ne ñoo sax saaxee ambassade bu Sénégal avis de recherche boobee sax doon na loo xamante ni ñu bëri nag jotoon nañ ci àddu tegoon nañ ci ndampaay bu takku ndax képp koo xamante rek ràññee nga ci kenn nga mun ko daal di yebbaane ñu jox la boobee remise en cause placé nañ ne sous contrôle judiciaire fas nañu fukk ya ci caution 10 millions de dollars boo xamante ne dañ ko fixé bénéficiaire bi nga xamante ne moo jëm ci liberté provisoire bu ñu sukkandikoo ci même procédure bi nag si Kairé arrêté nañ ko niki alxamis bi ñu weesu jotoon nañ ko libéré waat ci ëllëg sa ci vendredi bi après vence nag ñu jëm ci source jot nañu àdd nag ngir kuy fay nag intégralement caution bu 10 000 10 000 dollars juge bi nag dafa mujj ordonné de si benn cas porte bracelet électrique maanaam électronique la ñuy solal kii di Kairé jot ne euh, participer na ci saccage boobu nga xamante ni moo yàq nag euh, ambassade du Sénégal ñeenti suspe yooyu yëpp nag kenn ku ci nekk jot na leen interpellé ginnaaw bañ leen tegee loxo nag ba noppi confié nañ leen nag lii di tribunal fédéral bu district bu district bu sud de New York bureau fédéral nag fas yéene amal ay investigation yu takku wax ma FBI rawatina police bu New York lu xew ca Joal jéggi na dayo ab wenn xale bu jigéen lañu fekk ñu dugal ci benn siwo avandé ne ñoom ñoo doon fo ba gis ko découverte boobee niki démb ci dimance bi ca quartier Santhi bu nekk ca Joal Fadiouth bu 15h jotee la mbir mi foofee la amee terrain ba nga xamante ne daal taalibe fa la ñu foowee foofu la ñu dem gis benn wenn jigéen bu ñu dugal ci ab siwo ñu abandonné ko foofee sio ci benn sio boo xamante ne couleur bi dafa weex ak euh, bàyyi ko ci terrain ba observateur dikkaat si duñu xamal ne nda ndongo yooyu bañ ko gisee rek si la ñu daw euh, informé nag ka nga xamante ne mooy délégué bu quartier ba à son tour moom it mu dellu siwaat dem woo ñi di waa brigade de Joal ba ñu egsee ci bërëb bi gendarmerie nag jot nañu procédé ci contestation bi usage waaye tamit déposé le sio bi euh, ca district sanitaire bu nekk foofee enquête bi nag ubbi nañ ko ngir ñu mën a xam rek kan moo ko fa sànni leeral daal di jubbee ci loole doon na lu jéggi dayoo weenu jigéen lañu fekk ñu teggi ko ci boromam teg ko ci benn siwo journal li ñu xamal ñenn ci askanu Joal nag jamono ji dañoo tiit rawatina sax lu jëm ci loolee te jamono ji boo seetloo ñu ngi ci octobre rose nag dem ci feebar boo xamante ne sax di cancer ñoom la ñuy addu di def ngir mën a saafaral jigéen ñi ñu mucc ci ci loole waaye nag la am ca Joal jéggi na dayoo xamuñu nag kan moo ko def ba tax ñu ubbi ab enquête ngir mën a xam ku def lu nu mel.